lu am solo euh, ca doxantu ba nga nga ànd rek sa soxna mu ëmb guddi jot mun la kaan doxantu ni nga bañ kaa ñu ànd doxantu ji nga lànk góor ñaa ngi may dégg ñu ci bari duñu ànd nangu ñoo ànd ak seen jabar yi doxantu ji te li mu nekk yaa ko ko teg kooku est-ce na sooy accusé te suñ ko woy day bañ ah ah ay satu ah kaay doxantu nga bañ. ku nanguwul ñoo doxantu de gëmu accouchement dina ñëw. <laughs> kooku daal teel a abandonné mais ay surtout dafa am sama benn waay bo boo xam ni ndeysaan euh, dafa tàggoog soxnaam. Euh, su joxee weer wi su joxee xaalis bari lay joxe pour xëñ njabotam jabar ji diko ko su joxe ay dépenses pour njabot ki mu koy natte léegi moo xam ne système bi mu def mooy dafa jël doomam yi ka ca gën a mag taaw ba magum jëmmal la léegi chaque waa ji bitim réew la nekk. Mhm. chaque fin de mois mu jël xaalis bu bari jox ko taaw bi taaw bi di joxe mu mel ni. Mhm. taaw bi mooy joxe. Mhm. maanaam waa ji dafa komploog taaw bi. nee na ma safe fait des années. ñëpp dañoo yaakaar ni sama taaw. moo yor kër gi. mais man maa yor kër gi di ko jaarale ci sama taaw. léegi jàpp ne sama taaw li muy liggéey. ci la yore kër gi. soo demoon tey jii ca ndaw sa ni ko waaye ana diw danaan la moo kooku de ba mu gëj di xaw ma kan la yorul xale yi daa abandonné xale yi. te mais taaw bi xam na. moom xam na. yenn doom yi ndaw yi sax xam nañu. mais ndaw si moom moo xamul. ndax su ko jaaralee xaalis bi ci moom. Mhm. da koy xaaj kott ko di dugg ci ay natt yu kenn xamul. loolu tamit système la boo xam ni. Mhm. Euh, am na solo na ci na enseignant bi jàng loolu. Euh, na jàng saar woowu loolu aw saar la. bu fekkee xale ah? bu fekkee xale yi dañoo doon xale. waaw di ko dama wax ne ko ay parents ma nga fa. waaw na ko jaarale ca ñoom. na ko na ko jaarale jaarale. même lu mu wax nii rek par rapport ak enseignant yi parce que mhm. juste benn bi may def terminal sama profilo bu ñu doon am cours par samedi. danaan tardé du tey la ñëw ba pare moom Rufisque la dëkkoon. Mm-hmm. donc su fekkee su ñu ñëwee ñu ne ko waa monsieur tey dangaa tardé de tey teeloo ñëw. Mm-hmm. mu ne ah dama doon toppatoo sama doomi xale yu guddi naan ko monsieur yow dangay toppatoo sa doomi mu ne waaw doomi du man du sama jabar rek moo ko jur ñun ñaar ñoo ko bokk jur. Mm-hmm. donc de ce fait nee bu xëyee. dina xale dinañ yeewu mu defaral leen ñu sangu mu ah. changé leen defaral leen ñu ndekki après moom mu door a ñëw joxe ay. courant ah, enseignant enseignant ñëwaat na de te allo allo waaw doy baan waaw waaw. man mii la man man la ba tey. yow la dëkk bi dëkk bi la ñuy waxtaanee moom tey tey moom dam eh, waaw moom gis naa loolu. ñu ñi woon na la téléphone. eh émission bi. waaw dara rëccu ma ci. Mhm. dara musuma cee rëcc. waaw ñu ngi lay déglu man naa la man sama lépp. TFM RFM yow rek la ñuy déglu yeggaleel mu leer. voilà très bien. Mhm. léegi xam nga lan laa bëgg. waaw. Hmm? Mhm. nga fexe ba nga xamante ne. da ngay coupé. nga xamante ne man ak yow ñooy déggante ak euh, soxna soosu nekk sa wet. non non ñoo mën na dañoo nekk ci liggéey ce que loolu mën na nekk. non mënta nekk de moom kay da ngay wax en direct ngay xol. Oh. damay jaay samay ngir. waaw yéen da di jaay seeni ngir. waaw damay damay jaay sama ngir. c'est-à-dire. waaw. Euh, dara dina la arrivé. Ah. mënoo ko wax Sénégal yëpp di dégg. te RFM. waaw dem na ba bitim réew. waaw yaa may dégg. Uh-huh. mais li ma la mën a wax nga xamante ne yow da koy dégg ak foofu na soos ñu nekk sawet waaw ah. ah. yow rek la déglu. su boobaa. waaw ngeen comprendre li waral lii yëpp. Uh-huh. d'accord léegi léegi léegi da mais bu boo ma defee en direct. Mm-hmm. non xool loolu moom duma leen ko baal. d' accord mais nag émission bi en direct la nag. ñun non xam naa xam naa xam naa bu baax mun ñu la xam naa bu baax. c'est que daal li ma lay li ma lay mooy. c'est-à-dire dañoo dem ba émission bi. Uh-huh. man moom. waaw. parce waaw moom mooy mooy li nga xamante ne. Uh-huh. bon en fait naqari na ma. Uh-huh. lenn rek dañu ci xam. li ñu san samay doom xool boo leen taseeg seen papa école du leen ko nuyu. waaw samay doom àggee ma ko. wax ma ko. waaw ne ma carrément di suñu euh, yaay nee na bu ñu ñëwee école bu ñu leen waaw léegi nag parent bu dul jox añ ak reer ak euh, ndekki ay doom kay. non xool nuyu kooku. Euh, sëñ bi. waaw sëñ bi. waaw man je suis assez mûr pour pour nga may passer en direct man dama la ne. boo bëggee xam li ci biir. waaw. li ci biir li nga xamante ne man waxuma la ko. waaw yow yaa woote en direct. waaw maa woote en direct. mais jël ma ci suuf. waaw mais fi ñu mënuñu laa jël ci suuf parce dañoo nekk ci liggéey. ok amul benn problème. ok merci beaucoup. woon ñu koy kii. 88. waaw non garaawul. voilà da ngay woote monsieur Diop ci 77 150 17 17. nga jot passe partout di nga jot passe partout li nga bëgg wax yëpp ci sa problème. nga expliqué ko foofu wala nga def ko vocal. allo. voilà. oui salaamaaleykum. salaam. Ndoye ñu ngi lay ziar. bu baax a baax. waaw man la sa soppe. kan la ci. Boga. Boga ñu ngi lay ziar. naka yi tey. ça va alhamdulilah. ñu ngi rafetlu baax a baax émission bi. jaajëf. ak sa liggéey ci réew mi. vraiment ñëpp a ngi koy rafetlu. jaajëf waay. waaw man dama doon wax ngeen def benn analyse rek. balaa may ñëw si enseignant bi. waaw. maanaam cest biir dire affaire il faut ngeen am benn analyse objective. waaw. góor ñi. Mhm. bon ils pas toujours tort. Uh-huh. am na ay jigéen ngeen xamante ne. waaw. dañuy def seeni ñombe. Mhm. ba dara dal leen. Mhm. après ñu jël doom yooyu noonu. di ci di ko arnaquer nit ñi. maanaam dañuy toog ci feu rouge yi. Mhm. di exposer seen doom yi. Mhm. di yalwaan. Mhm. wala ñu toog ci buntu jàkka yi. di teg seen njaboot yi. di yalwaan. xam nga loolu noonu. yàlla rek moo xam ndax doom yooyu noonu ñuy teg ay doomu yoon lañ. wala nekkuñu doomu sëy. kon mbir mi. buñ jël tool bi yëpp góor ñi. ndaxte euh, ndoy baan hmm. euh, góor soxorul hmm. amaana jigéen boo toogee sa kër hmm. def say devoir ni mu waree def yàlla ni mu la santee nga jaamu sa jëkkër tarbiyu ko amaana sa sëy du tas mais jigéen ñi li ñuy def ak li ñuy wax ça fait am na contradiction bu mag a mag a mag a mag sëñ bi waaw. man waxuma ñi nga xam ne dañuy nekk ci buntu jàkka yeeg yooyu di yalwaan. waaw. jigéen a ngi déglu jamono ji mi ngi ci buumu sëy di sëy. waaw. am ak jëkkëram njaboot juróom walla juróom benn. waaw. ba mu gëjee gis ak jëkkëram ak léegi mat na ñetti at wala ñeenti at te sëy sëy ba tasul. waaw wala ma nga takk na beneen jabar ba mu takkee beneen jabar la commencé jeng dootul joxe ay joxetul dund joxeetul dara. su fekkee dañu luwee fayatul location ba fayatul courant fayatul ndox ma jamono jii may wax ak yow côté boobu la ñuy waxee. waaw léegi jamono ji waaw. loolu moom góor bu koy def. waaw. du góor bu baax. waaye mais looloo loolu moo waral émission bi te loolu moo bari ci dëkk bi. fuite de responsabilité la. waaw ñaata góor nga xam ñu daw seen responsabilité ci dëkk bi yow mi man. ah. personnellement. Ah. xaw ma ci kenn nag. Ah, xaar xoolaat su subaa nanga xool ci sa entourage. na nga xool na xool ci sa sœur yi. xool ci sa cousine yi. xool ci sa dëkkandoo yi. waaw nga wax ak ñoom ku ñu ku lu ci nëbbuwul nëbbuwul. waaw di nga ci gis benn wala ñaar ñoo xam ne bañ seen jëkkër yi ñoom ñoo yor seen bopp. waaw waaw. waaw d'accord amul problème waaw. léegi fi may terminer mooy enseignant bi. Mhm. jàngat bi ma si am mooy moom dafa ñàkk ba pare di ñenki ah, déet waay mais si ah. ndaxte jigéen bu ngeen séyee ngeen am ñeenti bant hmm. ne serait-ce que na xool bant yooyu hmm. mais bu mu toog fii di ko topp ci ay détails dugg na fii génn fii góor nga nekk jantal quoi hmm. voilà yaa ngi ñëw waaw góor dangay nekk jantal tabe waaw jëlale ah.

maa nga def. ça va très bien. may leb bi. Uh-huh. man si famille de vague laa juddoo. Uh-huh. sama papa abandonné na sama yaay quinze ans. mais yëf yi. la. Uh-huh. dafa tukki woon ànd ak tubaab bi mu ñibbisee suñu yaay daf ñu wan carrément ne sëy bi man maa ko doon sëy yéen ay doom ngeen mhm. seen yoon nekku ci mhm. ñu ànd ak sam papa ba léegi amuñu affinité bu bëri mhm. mais ñu ngi koy gis ñu ngi waxtaan ak moom bu baax bu ma tëddee comprendre kan moo kan moo tukki woon ànd ak tubaab sam papa dafa tukki woon ñaata temps 15 ans abandonné ñu nekk ay tout tànk du muy ñëwaat senegal ngeen ngeen fekk na man taawam sëy na. ma bi muy ñëwaat fekk ka bi mu demee kan moo leen yoroon. sama yaay. kan moo leen doon dundal ñeent lañu moo ñu dundal ba ñu màgg. waaw. ñun ñeent lañu. waaw nammuñu nammuñu dara nag. waaw. yàgg nañu yàgg fa mu ñu war a yàgg. waaw léegi lu tax seen seen papa ni leen lu tax nga ne affaire bi ci jigéen ñi la. waaw parce que moom bu ñu expliqué woon lu bon. Ah. ñun dootuñu tudd suñu papa si àdduna. Hmm. waaw mais même daf ñu wan ñu moom la woon du ñun. Mhm. waaw. Ah, kon moom ak seen papa la. waa du yéen ak seen papa génnee set. ñun ñu ngi gis suñu papa bu ñu neexee. Mhm. waaw mais affection bi am ci papa ak doom. du am foofu mère bee baax rek. waaw. man sëy naa am ñetti doom divorcé. sayaat naa nii sama jëkkër moo yor sama ñetti doom yépp defuma ci dara lépp moom la mi ngi leen di ziar waaw loolu lañ bëgg nag bu baax a baax noonu lañ ko bëggee ma sëyeeg nit moom mu am doom depuis 2000 2002 ba léegi buy fay huissier lay fay du gis doomam bu ko bëggee gis école am la dem neexuma xam nga am nañu man ak moom benn doom mais ni ma ko gisee mu bëgg a njaboot ni muy def ci benn bi man am ak moom kooku def yaayam la tax na mu démissionné ay liggéeyam ndax dañ ko doon dagg-dagg yu méttee méttee te moom du gis xale bi. Mm-hmm. moo tax ma ne la affaire bi jigéen ñi am nañ ci part de responsabilité. Mm-hmm. ndax doom boo ko nettalee li nga joteeg bàyyam mu bañ bàyyam. Ah, effectivement. waaw mhm. am na yoo xamante ne ñun jigéen ñi il faut ñu jël responsabilité wan leen ni. Mhm. yéen ay doom ngeen. Mhm. yàgg yàgg doom rek ngeen di doon xam nga kiy dundal doomam di fay école di ko joxe huissier. metti na. metti na kay ñu yóbbu la tribunal di la dagg nga am sa kër sa doom daagoo fa. du fa dugg di lekkee ci cantine école yi te soriw la. soo ko bëggee gis yaa dem. xam nga neexul xale bi bi mu amee bac la ko tegal kayit yëpp wan ko ne ko moo doon fay école yi. Mhm. doom ji mosul xam ne papa ji mu ko doon dundal. Mhm. wan ko ay këyitu huissier yu ñu koy signé. Mhm. motax mané la par yeen saa jigen ñi tamit dañuy xeexaale doom yi. hmm deug la deug la xéxé xeexee doom yi ba nga xamantene man samay doom xamuñu luma jotté sen seen hmm té chaque jour ñu ne ma ñun sam papa daf lay gërëm rek. té mm-hmm. te mu faseru. Mm-hmm. yalla mo mais c'est parce que la nga jang ci sa yaay la. wa <laughs> jang ma mok motax mané la affaire bi jigen ñi par yeen saa dañ ci am part de responsabilité góor ñëpp bonuñu am nañu baax. Mm-hmm. am nañu baax ñu bare bare bare bare. am nañu bëgg def ci sen doom mais dañ leen mayul accès bu ñu éggé ci sen doom. effectivement kon kon est-ce que du loolu la enseignant bi bëgg expliquer. man gis naa ku wax doomam carrément sa papa dafa dee. te soo dem teew ñu. est-ce que du est-ce que du euh, tas ga su ñaawee mooy waral yenn yi. waaw mooy waral yenn yi. mais yow lépp ah. lu la nit def ñaari nit ñooy jur doom. Ah. nit ki mënulaa def ba bagay la deewagoo yaa ngi dund. Mhm. di dem di ñëw. Mhm. boo demee ba nangu di jël xaalis bi ci huissier bi. nga mhm. nangu muy gis doomam. d'accord mais xam nga bi tas go su ñaawee day waral yenn yi. xam nga tey jii lii nga dund nii. sa yaay dund ko bariwul ci dëkk bi. gaa yi ñu sama classe gi gars yi dañ dañ dañuy topp seen bakkan. Mhm. maanaam topp noos gi. Mhm. maanaam ba ñuy débrouiller di jógo ko daanu ci lañ amoon jabar joo xam ne dañ koo takk nii rek waaye du kooku leen nopp. Mhm. wala seen yaay leen tànnal kii rek wala seen doomu nijaay la wala ñu jël ci famille bi kenn rek jox la nga ànd ak moom di bërëngu di bërëngu di bërëngu ba bunt yu ubbeeku nag nga commencé am dara. tabax kër ah, am xaalis nga ne ah ginnaaw am naa xaalis léegi maa ngi ci donkaas gi kee ñu ma mayoon te sama ñoom yaay forcé ma ko wala kee ñu ma mayoon ca mbokk ga xaaral ma tege ko ne fekk am nga njaboot njaboot ngeen lu bari bari nga ka tege ko ne fekk kamoon taawun nga nga ñëw ndakaaru gis jënd ci immeuble yi jënd ci oto yi bees yi tàmbale sol ci jasneer yi gis ci xale yi ndakaaru yi nga xam ne xale yi tactile yi nga takk ci kenn mu détourné la nga woon ginnaaw sa jabar say njaboot waaw dëgg la. loolu loolu loolu moo waral thème bi loolu moo am ci dëkk bi. dëgg la dëgg la. waaw ñaata femme yow nga xam yoo xam ne seen jëkkër yi dañ leen a abandonné abandonné seen doom yi. Mm-hmm. am na ñoo xam ne abandonné ñu leen ñu ngi waaye ci mm-hmm. biir kër ko def. voilà ñu ngi ci biir sëy ñu ci ñu ngi ci biir sëy bi ba pare di dund affaire bi. tax ñu toog fa. di ko dund waaw c'est ça. Mm-hmm. parce que tey jii imaginer jéeg bi am euh, cinq doom nga abandonné ko moom ak ay doomam. fu mu jëm su fekkee liggéeyul. ah xanaa nekk caga rek wala muy taxawaal voilà xaata kay ngay ngay daal nekk ci dëkk bi loolu dong noo nekk ci mbedd bi di taxawaalu. voilà mooy li may wax yenn xale yi. kenn dugul di yalwaan pour njabootam. Mhm. def ko ci prétexte bu bon. Mhm. ndax boo ñàkkee mooy agression yi ngay gis. Mhm. mooy li ngay gis xale yi di ko dund. waaw. ñun tey ji sama yaay bu amul woon jom doon liggéey di ñu dundal. ay jigéen ñoo ci ëpp si njabootam. kon ñëpp dem nañu si beneen côté bi. waaw mais daf ñoo wan ni mm, am pàpp pàppaa ngi fi am yaay yaay a ngi fi man maa ngi nii di dund deewuma uh-huh. lépp lu ma mën ci sama dund dinaa ko def ci samay doom ba ñu tekki dara bu ëllëgee uh-huh, uh-huh. waaw kon doom buy liggéey ci xam nga tey xam nga kon tey jii mbir mi mbir mi mbir mi mbir mi gën naa xóot loolu nekk ci biir sëy bi euh, ñu nekk ci biir sëy bi te li ci gën a garaaw soxna si appartement Ndakaaru yu seer yi Mm-hmm. nga am sa jëkkër mu dugal la ci. xëy suba ni mër weer wi dee ñu essayé indil la kayit waaw njaboot gi wër la kenn màggoogu ci pour kenn xale yi maanaam taaw ba amagul liggéey day day day day day day taxale du am sax vingt mille francs par weer yow yaay yaakaaroo ko fenn. dama ci yedd ay xale yu bari chaque jour dafa am ay xale yu bari yoo xam ne man fi ma dëkk appartement bi xale yi maa leen mag. Mm-hmm. ñi ma ci gis ñuy sëy su may wax ak ñoom sax dama naan leen bul joteeg sax sa jëkkër ba sa yaay yëg ko mm-hmm. ndax yaay man tey jii sama yaay su ma dundoon tey jii lu metti wax ko ko mu fipp fi mu jaar ak moo tax mm-hmm. waaw njallu moo mu toog xam na ma bu baax su ñu ma yàgg la bokk gël tàppe laa jub doo yàggoo fa gef mm-hmm. waaw xam na ma bu baax da doon fréquenté suñu kër mais soo waxee tuut rajo la. Mhm. dañuy xam. mais àdduna bi am na fi ñu abandonné ay doom ñu nekk ay bandi ñu leen di gis nii. bari ñu jëruñu leen leen jur. effectivement. ndax jigéen kese mënul defar doom. bon doomay teel a tëdd. mais émission bi duma ko kon violence bu bari bii ci dëkk bi yu mel nii. lii ñun leen di jóg ay xale yu tuuti ñoo fiy sëy di tas. am 18 ans am jëkkër. 20 ans nga tas yaag sa doom yéen a maase. que du kon looloo tax yéen jigéen ñi. Hmm. di bàyyi seen doom yi am 18 ans. da ngay gis xale bu am 18 ans di fay courant ndox këram. di joxe di joxe fekk day jaay boppam. day jaay boppam waaye bu musa wax ne day jaay boppam. waaw soo gi nga ñoo kookee nag soo ko jegee ni ko ànd sa papa. Mhm. mu xamul papaam. wala ba mu wala papaam dafa abandonné yaayam depuis ci at ba booba Senghor jóge gu fi. looy baan léegi xale yi waxatuñu dañuy jaay seen bopp xam nga luñ lay wax. suuf laay jaay. waaw damay jaay terrain. waaw terrain laay jaay. Uh-huh. suuf laay jaay loolu la ñu nekkee ci réew mi moo fi toj. damay jaay suuf. waaw te ñun suñuy magam yi ñoo leen jur. damay màgguñu bay yàgg kenn. non màgguñu. xale yi xale yi tërërëri fii. ñun dañu toll si ñu ñuy yàgg ñuy yàggat suñuy doom. Uh-huh. di ay far ñuy dugg seen biir kër yi ñuy bàyyi xale yi ñuy génn. Uh-huh. looloo fi nekk. ñuy tox yàmbaa ci bopp koñ yi seen yaay yi ay xale yu tuuti lañ dëkk ci biir koñ bi di tox ñoom it. Ah, moo leen mën a téye. Ah, kenn kenn kenn. dafa metti. boo ñaari nit ay yàgg. bu ah. pap bu yaay yaree ba sonn mënul papa daf ci war ja jàpp waaw mais violence bi ci dëkk bi yëpp raykatu nit yeeg yooyu yëpp ay nit a leen jur mhm. wadduñu ci benn garab té ko ci jàkkaar lool di ko ànd sa papa da danaan la sama papa sama yaay divorce ne ëpp seen papa ñoy violence sen biir kër yi bañ tam ko boy wax ak sa jabar di saga ndey di fëgg buntu yi mhm. fofu la violence bi yëpp di jóge xalé da koy fekk ci biir kër mhm. ndax nañ sacc katu 100 francs bi moy sacc lu mag bu ëllëgee koy sacc nen di nga mësa sacc nak kër gi lay commencé ñun ñu koy bay bayal di ko bay bayal ba xale yi màgg. Mhm. commencé ko ci mbedd bi. kenn mhm. commencé wul ci mbedd daal lépp ci biir kër lay. ko mais lan moo tax man su ma amee jabar. abandonné ko dem ci sama beneen jabar bi sama beneen jabar bi day kontaan. ah day kontaan parce que moom loolu day foog ne ndam la. est ce que kon yéen jigéen ñi bëggante ngeen seen biir. ah jigéen ñi kenn bëggul sa morom. yow neex nga ma de. yàkkamti nañoo am wujju wane seen bopp. neex nga ma laa wax. ndamal jeeg nekk. xam nga lan la. mooy lan tey ba say doom màgg tekki dara. Uh-huh. kaala gi ci bopp si ndigg la mujj njëkk. ngel tàppe kay nga dëkk. ana xale yi nag dañoo yàkkamti. <laughs> ndax durée de vie jigéen yàggul. Uh. xale yi ñoo yàkkamti. xale yi ñoo yàkkamti. waaw. Dieng xale ñoo yàkkamte li ngay sàcc boo toogee mu fekk la fa sa wërsëg la. Uh-huh, uh-huh. mos naa laa woo. jaajëf kontaan naa ci yow merci beaucoup uh, kii di xam naa ne ab sociologue la. kii ñàkkul ni yéen ay satu yéen a bokk foo leen jàngi Adama. duma ne la déet de yi moog dama dama dama bokkoon ban de ñoo bokkoon ban fële ca école Maawa Diouf ca Kaolack waaw daba nu mu tudd Aïssatou daf mel ni sorewu leen classe de def na sociologie lépp mën na nekk de waaw parce que li mu fi def nii daal sorewul sociologie moom lépp daal mën na nekk mais est-ce que gis nga ni li yaayam dund la nekk di dund loolu moom lu dund daanaka kan? mais da rafetal moom gisoo doomam yi eh, seen jëkk seen yaa papa yi ñu ngi leen yoree di leen fayal et tout amul benn amuñu ben problème mom bi yaayam bi mu dundee il yaayam bi bi sen papa abandonné 15 ans bi mu ñëwee da leen ne du sen du sen combat sama combat la sen yónnee ko ci ki sen papa la top leen ko. mais yaay ju baax non lay def ndoy baax té li mu te sax moy ah. dëgg. Mhm. parce que dafa dafa dafa dissocier ñaari affaire yu bokul mhm. doom ak seen papa. Mhm. parce que li xew ci diggante parents yi parents yi la xale yi seen yoon newu ci. Mhm. da xale yi leen concerné mooy lan ñu ñu sàmm leen di leen dundal euh, yóbbu leen école ñu jàng li war ci ñoom ñu def ko bu ñu feebaree ñu faj leen taxawu leen comme ñu mu waree en tant que parent. Mhm. li devoiru parent ñu def ko. donc elle bien fait bu mu defee bu mu bi mu dissocié wee loolu noonu bay waree yabal xale yi ñuy dem seen papa nga xam ne benn animosité benn endo am diggante xale yi ak seen papa. fois. effectivement parfois xëy na mën na nekk destin wala dara ndax nit ku nekk lu yàlla bind sa jëbi moom ala kulli xaal loolu mooy am. Mhm. ndax peut-être tey mënoon na demee neneen moom mu bañ a am jëkkër divorcé et tout ça que mu nekk ci sëy boo xam ne dafay yàgg benn jëkkër lay am et mhm. mais xam rek li ñuy wax à chaque fois aussi environnement bi tamit day déterminer ëllëg nan ngay mel et tout ça ak ban genre style de vie ngay mëne. Mhm. parce que xëy na amaan na lii yëpp xalaatu ko woon wala peut-être relation yaayam ak papaam nu meloon affecté na ko. au point que de dem ba dafay fait dans dans sa vie de tous les jours. Mhm. parce qu'à l'entendre parler 15 ans il nous connaît ça ça se voit que c'est quelque chose qui l'a marqué maintenant, na parce que vous mhm. budul dara. kenn euh, sa papa daal ak sa yaay foo gëstoo war nga leen gis ñu nekk sa wet. Mhm. surtout boo nekkee xale. Mhm. foofu nga xamante ni da ngay soxla repère. Mhm. c'est c'est c'est la phase la plus critique de l'évolution de l'homme parce que foofu ngay baaxee abadan fa ngay bone abadan. parce que soo amul repère ku lay teg ci yoon di la wan nii ngay jaar nii ngay def lii ngay éviter lii nga warul def da ngay sonn ci sa àdduna. jaajëf mbokki auditeurs yi thème de la semaine ngeen di déglu nii mais mais Ndiallo. njalo ku la defal lu baax su nit ñi toogee wax ko booy baara. Mhm. njalo xam nga daa am ASC bu tudd Mboti Pom. Mhm. <laughs> baara. Mhm. njalo da jox ko micro bi. njalo amaxal njalo dafa am ASC bu tudd Mboti Pom. demi final. bu tàng. ma ni bu nu mu tuddati euh, match bi. maa ngi moom ñu wax ci suba gi man ko da ngay toj kër gi. laaj go mhm. nga jaay ko bii. non Jallu daa diibuli ci man <laughs> Jallu waxal. wallaay wallaay baan. Jallu. def nga ca rafet a rafet. def nga ca lu rafet dalal suñu xel ñun ñëpp. waaw bañ a di jibale laaw la cat. xoolal bi jot. Ah. waa ji ndengeñ leen. Mhm. teqalu tequm bi. mu wax ne ndengeñ leen. man ko kenn du la gagné de. mu may woo man man ko kenn du la gagné de. ñu lay woo man ko kenn du la gagné ba gars yi égaliser match ba yàqu. laaj ko. njal wax rek. te kat xam nga lu ma gën a neex ci match match bi. bu ñu ma woowee ma ne leen ñu ngi ci. <laughs> <laughs> te xalaat ñu ngi ci rek woo baan baan. mu ne ma njaay lan la <laughs> xoola man xaw ma ci marché bi dara su ko defee bu ma waxee ni mu demee ma woowaat xale yi wax leen di mu dem ñu ne ma ah, wax nga dëgg di pourtant ma ne leen lu mën defa ci lu baax ñu naan ko yow ko waa ki ki ngay waxal kan la yow ki ngay waxal mënuñu ko paas benn yoon man leen kooku mënu ma ko paas en tout cas daal li ma leen ma wax ne mooy dana seen xel daal yëpp dina baax waaw mujj affaire ba demee ni mu demee yaa may ma ma jox la benn anecdote <laughs> waxoon na ma fi ne ma gis nga mbër bii nii di bëree dimanche bii ma ne ko ah mu ne ma sëriñ bi ma wax lu set wecc la ma wax. ma ne ko lu mu la wax mu ne ma nee na ma dañ koy juutal noonu lay daanoo. <laughs> xoolal moo wër àddina bi ne leen xoolal jiw mii di bëre nii. day daanu dañ koy juutal noonu lay daanoo. ma teg ko fu wóor nag. te noonu la daanoo. dëgër dëgër dëgër nga fit de baaraam may nag. baaraam moo may dey. xam nga dara nag. <laughs> baaraam may baan xam nga dara wax ñu. baaraam may dey. sunu match bi moom kontaan nañ ci ñëpp gërëm bul ma tax sociologue yi topp ba bul bul tax. <laughs> waaye leen de dinaa la ko wax baan. waaw. Euh, kii fi génne léegi. Mm-hmm. Euh, dafa wax wax ju am solo. wax na lu rëy. Euh, ma am ci jàngat nag muy ne doom bu jigéen jàngaaniwul ndeyamay sëriñam. Mhm. li yaayam dund loolu lu ko yaayam paas. Mhm. moom mu defe noonu ak ay doomam. Mhm. ndax dañu nekk ci euh, jamono ju doy waar. boo amee doom ju góor doo nelaw ba yàndoor benn bët ngay nelawee. boo amee doom ju jigéen fasaalika noonu ndax ci jamono toll. Euh, da yar ba mu baax sax mu génn. ku safaanoo yàq ko mm-hmm. moo tax yàlla nañu yàlla tegal njaboot gi loxo te barkeel leen ñi nga xamante ni dañuy yar seen njaboot bu mu baax jàngal leen njub jàngal leen muñ jàngal leen ngor gis nga doom mm-hmm. danga koy jàngal jom mm-hmm. doom danga koy jàngal fulla danga koy jàngal fayda danga koy jàngal doyloo boo ko ko jàngalee fu mu dem mën na faa ne ndax nag euh, nit ki da ngay xam lu baree bari ne xam lu néew ne pat doo def loo xam rek daal di koy sotti diggante yaay ak doom dafa jege trop bul faral li olof day wax naan bu la yaay nettali woon li mu daj ci baay nga bàyyi baay àdduna ak léeg-léeg bu la bàyyi nett la nga bàyyi. waaw c'est vice versa rek. Mhm. Euh, ñu nekk ci jamono joo xamante ni. Euh. Euh, métit métit yi li ko waa ji waxee sànq. Mhm. ne dañu jël sëy man moom laay wax sànq ma ne pour quoi sëy war a métti. Mhm. mais ñaar ñu nobante ak ni mbëggeel neexee. pour pourquoi mu metti mu war a metti dafay metti say xare la mais quoi mu war a nekk xaritam demoo pour xeexi ji. da nga dem pour jàmm. dem pour salaam dem pour jur fa njaboot gu barkeel lu fa wa métti am buté place nit ñi nañu bàyyi nit ñi ñu sëy ci jàmm mais ah. doom yi nañu leen yar di leen teg ci yoon te góor ñi yërëm jigéen ñi mhm. gis nga euh, li mu wax sànq ni que euh, papam dem na quinze ans euh, bu yaayam nettali woon doom yi dañuy bàyyi seen bàyyi àdduna ak alaxira mhm. te lu la yaay jàngalu rek mënoo ko jàngal say doom mhm. doom ndeyam a koy nàmpal tam koy nàmpal day teen di ko xool nañu bàyyiwaat xel ci njaboot gi mhm. te góor ñi ngeen yërëm jigéen ñi te jigéen ñi nangoo muñ te sëy néew ñu la nga toog nag di muñ loo xamante ni dañ lay saaf suuf di la ca teg jabar nawle la jabar danga koy war a bégal muy xàppi di dund lu neex ngeen di enjoy lu mel ni jàmm mhm. mais ma gis góor yu senegal yi ni ñuy def jigéen ci ñi ma ko sañ a wax am na ñoo xam ne dañ lay bégal ba nga defee ne métit amatul ci àdduna am na ñoo xam ne dunduñu métit mm-hmm. mais am na ñoo xamante ne dañ lay teg coono àdduna boo xam te duñ la sax fase dañu lay wàcc ci biir kër di doxaani wala ñu wàcc la ci biir kër am seen beneen jabar di dund lu mel ni jàmm wàcc la fa ngay misère ak say doom su ëllëgee doom yooyu tekki nga ñëw taxaw naan c'est mon fils wala fii di xoggali koy aji mbagg lu ñu la jox nga lekk ko lekk ko waa xam nga xam nga euh, say xare la niñ ko daan waxee euh, dañ ci doon jublu ne parce que boo xoolee nee nañ la xeex ak bakkan moo gën a metti xeex ak yor jaasi di xeex parce que mooy bëgg-bëgg yi parce que instinct yi nekk ci nit te animal xamul lu dul li mu bëgg mhm. bu xiifee na dem lekk bu bëggee lu mu bëgg def fi mu fi mu ko sentiré la koy defee instant animal yooyu nekk ci nit nit ki war a xeex ak moom ci seen diggante yéen ñaar ñi leen boole xam yéen ñaar bokk leen fu ngeen juddoo mhm. bokk leen ñu leen yar ngeen war a nekk nag dëkk ensemble te dëkk dafa metti mhm. looloo taxoon ñu naan sëy xar la parce que pour yéen ñaar ngeen xeex ak instant animal yooyu nekk seen diggante yéen ñaar ba du yeewu parce que da ngeen ko war a ëpp doole parce que bu ngeen ko pul dool du ngeen ko mën not te nit looloo tax mu nekk nit ndax facteurs yi ñu dajale ba ba ba mu nekk nit bu nitewul rek kon jaratul moom muy nekk nit te pour mu nite nag foog mu diminuer instinct animal yooyu nekk ci moom parce que di nga gis nit di jëf-jëf joo xam da ngay xam ne kii lii du yëfi nit parce que bu fekkoon ne yëfi nit la nit du nit du defe noonu comme nit du defee noonu nag loolu moo taxoon ñu doon wax sëy xare la pour nga mën a xeex ak yooyu ba yooyu du dominer mais euh, gis nga sànq am na ko wax ne bu école dee tijji daanaka jigéen ñi rek nga fay gis daf ci am tamit am na góor ñu am jom ñoo xam ne tamit taluñu tamit dem école ba taxaw jël nañ jox seen jabar mu dem mais da ci gis góor ñoo xam tam dañuy jox seen jabar seen jabar naan daan doom ji gis nga li may daj au lieu que ñu ne ko seen baay joxe. Mhm. mais naan ko gis nga li may daj war ngeen a màgg ba dimbali ma. Mhm. xam nga xale yi ñoom it mën nañoo dëkk ak baay bi ci biir kër gi baay bi di def te doom yi duñ ko gis parce que seen yaay du leen ko won mhm. loolu it dafay am. gis euh, ci suñu mbokk enseignant boobu di wax peut-être. peut-être bëgg na bëgg na def parce que am na fi koo xam ne mi ngi nee na moom. Euh, mi ngi bitim réew te nee na léeg-léeg sax da koy bañ ba rakkam lay yebal mu jóge këram dem ba seen kër pour mu mën a woo def appel vidéo mu gis doomam hmm. war geen xam ne doom ji yéen ñaar yéen ko sëq kenn waru koo xañ sa moroom hmm. kenn waru ko mën a xañ sa morom te gis nga tamit léeg-léeg gis nga jigéen ñi ñu dem ci yoon par exemple tey man mënuma am jëkkër mu mu leer ma ne man daf ma wàcc abandonné ma bëgg maa bàyyeek doom yi te mu am salaire damay dem ci yoon mm-hmm. yoon bi du pour man mais pour doom yi la mm-hmm. mais da nga gis koo xam daan yàlla baax na man sa dama amul salaire bu ñu may toppee dañuy démissionné. non da ngay gis ko am danaan man amoo sax salaire bu ñu may nan ko moo bu demee ci yoon nan lañ lay kii amoo salaire bu ñu lay toppee parce que nit ñi foog nañ ne ki am salaire dong la la yoon mën a daan déedéet. gisa nga euh, commerçant bi sax yoon la na koo topp gis nga nit ki moo warul ta xaar loolu mm-hmm. sax. parce que nit ki yow yaa am war a am jomi yor say mm-hmm. doom. parce que tamit bi ñu bi ñu lay may jabar. dañ la na pour nga samp kër te samp kër mooy dëkkal. dëkkoo woddu. bu ñu la nee dëkkal nag new ñu la nga def ko ci ay étage mhm. bu ñu la nee dëkkoo it new ñu la bis bu jot nga necc mhm. bu ñu la nee dundal new ñu la ay miss yu lay lekk bu ñu la nee wodd new ñu la ay jesneer loo am bokk ak moom. mais nga am jomi def ko. waaye soo amee te nay nay caa def nag. waaye kooku irresponsable la. ñu déglu. alekum Ndoye Bane man maa ngi woote sa fédère auditeur la maa ngi déglu tam bi di woote man de lii ngeen di dem dama ko dund te ni dama nekk ak sama borom kër ñun mu yar ñett soxna man mii di wax ak yow ñetteel laa. mun am situation loolu dinu dundal ñun ñëpp ñu nekk si biir kër gi muy joxe dépense wax dëgg yàlla dara manqué wul mu dem ba nga xamante ne doomu aaw bi màgg na takk jabar bi ah, doomu aaw bi màggee takk jabar léegi mu ngi dundal ba ba mu am at doomu ñaareel bi góor la moom it takk jabar bi mu takkee jabar mu wootee réunion famille ni léegi daal comme que aaw bi doomam am na jabar ñaareel bi doom am na jabar man damay dindi tunt bi léegi ñoom ñu demal seen bopp léegi aaw bi moomee mooy joxal boppam dépense comme que am na jabar nee na doom ji na joxe dépense ñaareel bi moomee na joxe dépense léegi ñoom xale yi ñoom seen seen situation daanaka demeewul noonu te ñoom seen papa mi ngi liggéey macha allah yor ay immeuble am di ko di luy du premier au trent ndox mi fayatu ko courant bi fayatu ko te xale yi seen liggéey demee dañuy soogay rek débutante man sama taaw ak moom man mi troisième femme bi sama taaw ak moom seconde lay def dem naa ba nga xamante ne ñoom sama wujj yi dañ nekkoon si jàmm ak salaam léegi nag fi mu toll nii ñoom affaire bi génne leen ndax ñoom ñi ngi togg te seen liggéey demeewul noonu dañuy fortaat rek ku xëy yaa nga dem marché nga bu sa paan ñii dañuy jaay jën kii day jaay ndékki te loolu dafa metti ci ñoom mu dem ba daanaka ñun suñu biir man ñi nga xamante ne man sama doom yi màggagunu sama jëkkër ne ma léegi dootoo toggati comme que amoo goro dootoo toggati ñoom ñooy togg muy def kaat xam naa man man xama bopp man xam naa ne man metti na si ñoom ndax ñoom jigéen kese noonu dañuy daw ta seen doom yi ki si gën a ki am jabar ay 23 ans lay am keneen ki 24 ans lay am xam nga ne kooku ñoom daanaka mataguñu wàccee njël léegi nag def naka seen jabar seen sunu sama wujj yi dañu sonn bu fi ñu nii daanaka suñu digganteeg sax neexatu ñun dañu nekkoon si jàmm ak salaam mosuñu am benn problème waaye dañu dem ba nga xamante ne man mi sama ñàkk bañ togg ñu fekk sama jëkkër moo ne ma comme que sa doom màggagul bul dugg si njëlli léegi nag man toog naa atu yàlla togg ma ñoom ñooy togg léegi nag ñoom métti na si ñoom dem na ba am na dafa am gêne man sama bopp ma dama ne dama am gêne ndax maa ngi lekk joxetu ma jox sa sa kër joxetu dépense ñoom ñooy togg te ñoom dépense bi metti na si ñoom léegi man ma dem ba gêné wu ma ne sama borom kër léegi daal man mu ngi dee leen dimbali ndax ñi ay jigéen lañu seen doom yi ñu ngi soogay liggéey tam liggéey bi mooy loolu léegi sama jëkkër ma ne ko man daal bu fekkee loolu la man dama bëgg nga may jox dépense may moomante comme ñoom ndax ñoom metti na ndax jigéen ak moromam kenn ku ne ñun suñu biir kër yooyu dund ñëpp kenn umpul sa morom mun ma léegi daal fekkee da nga bëgg duggaat ci njël li sa doom kon na takk jabar di joxe dépense su fekkee loo affaire bi dafa la gêné te man sama jabar mi ngi doogay def seconde bu fekk 2002 la judd ku dugg ku dugg ku judd na mën na kii mën na mën na takk jabar bay joree njër léegi nag sunu diggante ak sunu jëkkër ñun ñi nga xam troisième femme yi neexatuñu sax daanaka ñun lan doon defal sunu jëkkër sax ñoom seen bopp defalatuñu ko ndax duñuy xund joxe bu ñu joxe dépense di dundal kër gi loolu dafay metti te moom am na ka mi ngi liggéey macha allah am na xaalisam mi ngi luy ay immeuble am yëpp waaye bu daal lu muy def jël poosam yóbbu ca banque ba xaalisam yóbbu sa banque ba lii mu bëgg nag ku moome nag di ko toggal ginaar moom muy bakkat feggu bu ko defee nag ñun sunu sama wujj dañuy bañ léegi nag daal loolu moo am sunu biir kër ngi lay déglu di la laaj sa réponse nga man sama doom bi xamante ne 2002 la nekk góor mi ngi def seconde dafa war a togg wala déet. doy na waar. <laughs> su mënul daal bu mu ko def. dégg dégg dégg li mu wax. ma ne su ko mënul bu ko def. mais mais mais ñetti jabar la waa ji yor waa ji dégg su fekkoon pauvre mais waa ji ku am alal la. waa ji am alal ba pare. waaw yow kooku dafa war a yor doomam yi. na yor njabootam gi bu bu mu foto moom ke benn kenn la am. ma nga université. waaw léegi nag moom ñu ni ko yow kon sa jëkk comme sa doom commencé gula liggéey. Mhm. yow toogal rek yow bul def dara. Mhm. ñaar ñi nga xam ne seen doom commencé ñoo def liggéey. Mhm. ñoom ñoo yor seen bopp ñoo koy toggal muy lekk di def yépp parce que jur na doom joo xam ni ñaar ñi ku ci nekk am nga doom joo xam ni mat na. mën nga waaw léegi nag waa ji ak ay millions ak yooyu ma nga day liggéey di sotti ca banque ba. Ah. léegi dërëmam dootul dem ci kër ga. <laughs> waaw ba loolu doy si nag nee na ay sa tur lan ngeen xam nga lii mooy mooy nay gu Youssou Ndour gi rek. Ah. <laughs> xam naa wayu nay bi moom war na war na bokk ci ñi jépp Youssou. waaw kooku kooku dafa nay. Ah? doy doy na waar daal doy na waar parfois yenn situation yi sax da nga naan ndax lii. <laughs> doy na waar parce que man mënuma concevoir que yow tu as les moyens macha allah yaa ngi sant yàlla euh, am na ñu bari ñoo xam ne yaa leen tane nga yor sa njaboot ba di xaajale day defal ñi bàyyi ñi wala lii la war doo ko def si ñeen nii franchement. Euh,